ñoom ñaar ñu ngay xeex Eumeu Sène Eumeu Sène ak Alé Racine ñoom ñaar jàppante nañu jàppante dem kaw san ñoom ñaar jàppante nañu. Alé Racine ak ki nga xam ne moom mooy Eumeu Sène. Alé Racine ak Eumeu Sène. ndeysaan Alé Racine Eumeu Sène bëgg na ko fàq mais Alé Racine mi ngi ni tekk di ko déglu. nga xamante ni ñoom ñaar dafa mel ni dañoo xaw a tolloo doole moo tax seen combat xaw a métti laay laaxi la laa bëgg na ko mbot Eumeu Sène war na ko ndom. Alé ak Eumeu yow li nga bëgg a def nii du mënta ne waaw waaw dañ lay daan Eumeu Sène daan na ko Eumeu Sène daan na Alla Racine loolu leer na Eumeu daan na Alla Racine ndeysaan ndeysaan Eumeu Sène daan na Alla Racine waaye ko suba de mu ngi ko naan dil dégg Alla Racine nga toog ba léegi nee ko su ma lay conseil dil jugul fa mu toog jugul fa mu toog Ali lu xew ndeysaan xoolal ma na Ali jugal dem ndeysaan lamb ale ale Racine Eumeu Sène ko ale daan ak daano ànd waaw daan daan daanu lamb des fois nga dem yaa daan ñu daan la ndeysaan loolu lu mel noonu dafa dal démb ki nga xamante ni nii ah ndeysaan oh ndeysaan waaye daanu na ndeysaan ñoom ñaar bëri nañu ba pare mais demu demu allemand loolu moo ko dal allemand dafa cabaxal ba jàpp ni adversaire am daanu na adversaire ba rocceeku bàyyi ko mu daanu oh kooku da ko rappel bamba man loolu loolu na maa jooy da ko rappel da ko rappel rappel daa rocceeku bàyyi ko amatul benn kal mu rocceeku bàyyi ko mu daanu ndeysaan mi ngi noonu lamb la man a bëre bëre dañ koy jàng bëre dañ koy jàng bëre moo tax man dama bëgg mbër moo xamante ne nii da ngay compétir di dem ci mbapat mi di bëre wala des fois nga bañ a gëj sa écurie mais des fois am na mbër yoo xamante ne dañuy gëj seen écurie te loolu baaxul ci làmb man daal làmb bëgg naa ci làmb ju mel ni Modou Lo Balla Gaye ah daw jàpp mu sëpp loxo ba mu teggi mu sëppaat yooyu dafa am ay ndox yu bëre yoo ah, xam loolu dafa dafa am solo boo xam ne lu sa adversaire def nga dindi ko loolu day baax ci mbër. waaw loolu dafa baax ci mbër mais mbër waroo yor benn kale rek. buñ ko def buñ la ci gañee da ngay ñàkk dootoo xam foo war a lamb du benn kale. déedéet lamb war ngaa mën a am kale yu bëri yu bokkul. xoolal ma ku ci mel ni Balla Gaye 2. ndeysaan. loo teggi mu tegaat leneen. ba pare am rapidité. am rapidité loolooy lamb. loolooy lamb mi ngi noonu. boo war nga cee boole rapidité. lu sa adversaire def nga dindi tegaat leneen. maa la wax loolu. loo def mu dindi nga tegaat fa leneen ba ba ngay daan. loolooy lamb. ndeysaan ndeysaan mais nag taala woo indil ma taala ndeysaan indil ma taala ndeysaan solo internet u Baol TV Bantamba TV ndeysaan mbokk yi rek la ñuy def di bëgg leen ci wàllu làmb nga xamante ni lu leen di bëgg rek ci la ñuy bégalante ak yéen ca Pikine waaye bégalante ak yéen fii ci Tëngéej jeesaan nga lanu Diouf ci arène nationale Baye Balla ak fii ci Tëngéej sekk ndaanaan troisième catégorie ancien gloire ak Bamba Thiam ndeysaan noonu ndeysaan mi ngi noonu ndeysaan loolu mënta ñàkk ana Eumeu Sène ndaysaan loolu mënta ñàkk ndaysaan mi ngi doonu ndaysaan nee naa leen fii ci Tëngéej la journée wu Bawal production ah Bamba wuyul ndeysaan loolu dafa am solo kii kii mooy Karbala kii kii moom Karbala kaay balaa balaa ñuy dem ci beneen combat bi Karbala Karbala maa ngi lay nuyu. xayam Thiam maa lay fay genn. ba am nga jàmm. waaw maa ngi sant borom wér. sa combat yow da nga dugaloon recours. waaw dugaloon nañ recours ginnaaw ma sant yàlla julli seenam di sant sama ñaar waajur maa maa ngi sant waa Mérina waa Tëngéej bu baax a baax a baax waa Mbaaw waa waa Dangu waa Thiawlène. keroog ñooñu ñëpp ñëw na ñëwal nañ la. waa Thiawlène Mérina Colobane Mengo Bédé Gëri Kaw Dangu ah ay jokkul coxo ñëpp ñëw nañ di sant monsieur le maire di sant si tamit suñu grand yi nga xam ne ñoo doon jàppale si contact di ñu teg si yoon su mel ni suñu grand doomu Dangu ay Tidiane fay xam nga di sant suñu waa équipe bi yëpp staff bi yëpp di ko teg si loxo PRA maam ñaaw siis ak ak Baye coach Baye Ndiaye di sant mbër yëpp bu baax a baax a baax a baax. mais recours bi fu mu mujjee. recours bi waaw ñu ngi si ñu ngi si bul léegi. Ah. waaw dugal nañ ko quoi. yéen a ñu ngi déglu rek. mais jàpp nga ne yow yow yaa daan. waaw ñoo daan moom loolu moom mais dañuy bàyyi xam nga rek CNG mu def liggéeyam. mais keroog dafa mel ni combat bi dafa amoon fu mu la toll da nga ñëw ci plateau bi mais yaa ngi ñëw mais yaa ngi jooy. waaye billaay daa am lu ma metti lu bare xam nga mënuñ ndaw mënul di waaj combat suñu combat ay millions lañ ciy def ñu ni dañuy jàpp ñu def si ay millions préparé 6 mois xam nga ñoo am ndam arbitre bi ñoo xam nga rek mais tamit erreur d' arbitrage day am dañ leen koy nangul quoi parce que nit mënul gis lépp mais dafa metti quoi nit préparé xale surtout xale bu ndaw di yaakaar gox ñu yaakaar ma bu baax a baax a baax ndax ndam li foofu la dàqe woon quoi mais ñu ngi diggante bi promoteur yi woon nañ la wala woowuñu la waa gars yi ñu ngi woote rek ñu ngi ñuy woo bu baax a baax a baax mais instant waa ñu ngi si ñu ngi si li mu war a ne rek waaw ñu ngi ci nuyu di waaj bu baax a baax a baax a baax incha di sant waa Tëngéej bi yëpp yëpp yëpp monsieur le maire ku si mel ni monsieur le maire xam nga père Mar aussi tamit Aline Mar ñu ngi koy sant Jibi Mar aussi tamit ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax Amari Gaari Cissé Paco Boy l'international bi ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di sant képp ku jàpp si combat Mbaye Cissé Mbaye Cissé Faye ñu ngi koy sant di sant waa Mérina gépp gépp gépp tëngéej gépp booy jagataay baay faal yi bàyyi ñu kenn kenn parce que ñëpp a jàpp si combat bi quoi booy seen fay ñu leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di la sant bu baax a baax kontaan ci yow merci beaucoup frère dina dina ñëw dina ñëw ci kii ba waaw incha allah ñëwal defal loolu incha allah ndeysaan mi ngi noonu taala nga xamante ne nii loolu lu am solo la ci wàllu lam ñoom ñaar keroog dañoo bëre bëre yu boo xamante ne nii keroog stade bi kenn merewu leen Karbala saa su ne dañu koy wax Karbala mën naa dégg mën naa dégg daal di ci làmb mais taala mi ngi nii tamit taala borom tëngeej maa ngi lay nuyu. Bamba Bamba Thiam sama xarit sama doomu ndey maa ngi lay nuyu bu baax a baax. mais nga maa ngi sant yàlla bu baax a baax. waaw ñëw xool samay rak ku ci mel ni Siteu ku ci mel ni Petit Baye Fall samay rak lañ sama xarit lañ maanaam ñun tëngeej ñun ñëpp benn lañ mbër yeeg entraîneur yi ñëpp benn lañ. moo tax tey ma ñëw encouragé leen may leen doole. mais tënkee daa mel ni temps yi dara de stade bi gars ngi tëgg. waaw ba te ñu ngi tëgg tey ñu ngi waajalaat. ñu ngi waajal le 12 ak le 13. bon le 13 mooy euh, euh, euh, duubal duubal jagle ñu naan ko Eumeu Sène Junior. war na am fii grand combat daje fa ay rakam ay petit Baye Fall numéro 2 ak Malick Niang moom it dina fi bëre incha allahu rabi bon le 12 ñu ngi. Fall ak Zal Bambey waaw muy ay journée yoo xam ne fa di yàlla waa Tëngéej gis nañ seen bopp te ñu ngi sant yàlla ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax ba nga xam ne Tëngéej ñu ngi commencé gisaat seen bopp ci làmb te promoteur dañu war a gëstu baax ay champion fi nekk. waaw boo ne doomu dàngu rek tënk nga lépp. ñi nekk ci ay gannaawam ay xale yoo xam ne ay avenir lañ ñoom dañoo war a bàyyi xel promoteurs yi ñëw fii di leen tëggal ay combat yu baax a baax a baax di la nuyu xam naa ne temps bi dafa gàtt. waaye maa lay nuyu di la. di la jox sa waay bu baax a baax di nuyu sama rak sama sama mbokku taalibi maam Cheikh jàmm ci yow. kontaan naa ci yow. jaajëf ndeysaan bëggee bu baax a baax nga xamante ni loolu dafa yàgg maam Cheikh la grand cadreur nga xamante ni xale yi moo leen jiite di def liggéey bu am solo waaye tamit maa ngi toog ak ki nga xamante ni moom mooy doomu dàngu ma bàyyi la nga nuyoog sénégalais xamante ni ñoom ñoo lay seetal. waaw mais on jubila bismillah inna wali yàlla ginnaaw bi ñu santee suñu borom julli sangu-sang yi di sant suñuy waajur bu baax a baax di leen gërëm di nuyu àdduna ñëpp ah di nuyu waa Bantamba TV. sànq da nga fay amoon benn confrontation wala. non amoo fi dara. dégg naa sànq am am ku naan doomu dàngu moo ma dóor. non yooyu wax la rek man fii laay dóoree du ma dóoree si biti du ma dóoree si biti fii laay dóoree waaw. mais mais problème mu doomu lan la. si. combat yi. waaw yi ñoo ragal rek. waaw des fois ñu waxaale nag li ñuy fay du ñu jaral bare quoi. mais sa combat kat dafay taxawoon ñu jékki-jékki dégg doxatul. waaw yi ngay dox gars yi ñu si kaw combat bi quoi dañu joxagul lu ko jar rek. Hmm. waaw loolu la rek. mais lan nga wax sénégalais ak sa fans yi nga xamante ni ñoom ñoo lay xaar. waaw nañu ñaanal rek parce que yaakam dinañ loolu taxawaat fii. waaw te mu ñu seetlu sax si biir stade bi lay nekk. fii ci Tëngéej. barke yonent bi. mais ndax Tëngéej nit nit sañ na la fi man damay may may fekk gars yi. war nañ ma man a fekk see. waaw man ku. nga pare pour ñëw fii rek. ay jë moo ko tere neex. loolu dafa leer. ak ku mën a doon. non fii dama ko war a def gisee fermé dama namm loolu. ma def ko gisee fermé te nga jëpp génne. mais sa bis non macha allah. mais dafa mel ni fan yii fan yii promoteurs yi ñu ngi leen di seet si bu fii ci Tëngéej. waaw non ñoo ngi nii mooy yoon quoi parce que aussi comme ni ñu koy rek dafa am booy yu bëri yu nekk suñu suñu ginnaaw. te yii dafay baax quoi ñu décentraliser lamb parce que stade bi mën nañ fi tëgg lamb. am na espace yaatu na mën nañ fi tëgg lamb donc dañuy oo promoteur yëpp pour ñu ñëw aussi fii si tëgg mbëru Tëngéej ah peu importe comme si doon rek ku si sens nekk rek nga bëree quoi mais yéen tamit ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax waa Bantamba TV waaw ñu ngi jël si liggéey te yàlla na jëm kanam waaw. kontaan nañ ci yow. fii la paix jërëjëf. ndeysaan jërëjëf mi ngi noonu nga xamante ni. mi ngi noonu doomu. doomu daangu daanaan la ndaanaan boo xamante ni nii boo ko fekkee tëngéej nga xamante ni waa tëngéej yaakaar nañu ko am nañ ci ñoom yaakaar muy lu am solo waaye nag mbokk yi ñu ngi demaat ci beneen combat boo xamante ni nii mu ngi ci digg géew bi. ndaraan gi la ak ki nga xam ne moom mooy Mbambilor. ndaraan nga wax de. daraan gi waaw moo fi moo nekk ne kii mooy doomi Mbambilor gi. mais ndaraan lu muy xoolee bañ koy ëpp lu toll ni ndaraan. mais am na ndaraan yu gàtt ay pokolin ay pokolin ay ay caterpillar ay caterpillar machine yu sarse borom loxo bi mooy ban kan si borom loxo déedéet déedéet caterpillar yeeg yooyu ah kii tibb mooy borom loxo mooy mooy mooy kii bi mooy pokolin boobaa ka mën a toj kookoy pokolin ndeysaan ñaar ñu ngi xeex poka waaw waaw mu ne la ndaraan ak kan ndaraan ak ki xam ne moom mooy mbambiloor mbambiloor waaw mbambiloor moo téye moom la ñu mooy dóor mbambiloor waaye ndaraan moo ràcc ndaraan waaw mais Pokola euh, euh, kii mii doomu Bambilor mii da ko am na lu mu bëgg de. ndeysaan mais na xam ne kii ndaama la. waaw mbaa bu ko yegee ci suuf dina baax. waa loolu day ne war na sóoraale tànk mi. waaye xamal naa la ñaar machine yëpp bi ci ëpp doole mooy bil. na xoolaale na sóoraale tànk yi gis nga. est-ce que xam nga ndaraan bëgg na ko cabaxal. est-ce que xam nga bil de serre. waaw bil de moo ëpp doole ci machine yi. maa la wax li ndaraan ak caterpillar yooyu yëpp mën naa ne. waaye bil lu mu fekk Mame Milane bëgg na ko yëkkati dóor ci suuf yëkkati na ko ba ci kaw daal di koy dóor ci suuf doole fa feeñ mais doole doole xale doole da koy wane ndeysaan mi ngi noonu oh ndaraan gii ah ndaraan bu ndaw la xoolal ma la muy fecc xoolal ma li mbacaca mbacaca gis gis mbaj ñaj gis gis ku taaj ndaraan gu ndaw la waaw ndaraan gu ndaw la ndeysaan mi ngi noonu moom moo daan léegi loolu am na solo waaye mbokk yi ba léegi rek ñu ngi fii ci Tëngéej mbër ñu ngi toog ak benn champion boo xamante ni moom it daana tey Tëngéej dafa neex ndax tey mbëru Tëngéej yëpp ñëw nañu tey fii ci ci làmb ji mër maa ngi lay nuyu. waaw mais maa lay ziar waaw ginnaaw bi ñu sante yàlla di julli ci yonante bi di sant suñuy ñaari waajur waaw di ñaanal tamit euh, sama rakk yi nga xamante ni dañ déplacé woon demoon ci gaal gi ñenn ñuy décédé ci. di ñaanal tamit ñi nga xamante ne ñoo fa des ak sama rakki bopp di Ronaldinho yal na leen yàlla suñu borom indiwaat ci jàmm ak salaam di nuyu Sénégal yëpp di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg waaw man nag mën naa ne Tëngéej fii fii tey ñi ñu toog nii maay borom parce que maa fi mujjee daan ngeer bu sap waaw léegi nag maa ngi waajaat ci combat di jëmaat ci man sama digganteeg ki nga xamante ne mooy Zal Bambay Zal Bambey. Zal Bambey laa war a bëre le 12 août. Zal Bambey nga am. si jëm boobam laa am. Zal Bambey Zal Bambey moom it champion la de. waaw Zal Bambey champion man kay ni ma koy déggee nii maa ngi koy calculer lu bëree bëri sax ah. waaw. mais mais loo ko bëggee nii. waaw mais wax fa dëgg yàlla moom ñu ngi rafetlu bu baax a baax ñëw bi ngeen ñëw fii Tëngéej parce que lii nii day dekkal lamb bi Tëngéej parce que tey amoon nañ fi benn promoteur muy Pala Mbeng kon Assane Ndiaye dañ koy ñaanal bu baax a baax waa Bawol production. yàlla suñu borom defal leen jàmm bañ fiy mën a tëgg ay combat yi waaw di woo tamit sama waa dëkk te xam leen ne le 12 incha allah le 12 août du yomb waaw parce que tey jii nii ku ci mel ni samay entraîneur di taala si la di waa Ikiri Dangu ñoom ñëpp ñu ngi sama ginnaaw di tëngee ji yëpp kon damay ñaan ñi nga xamante ne nii ñooy 100 pour cent Boy Nar Fall ak képp kuy supporteru Boy Nar Fall na waajal le douse te xam naa ne incha allah damay ñaan yàlla suñu borom daan ñëw toog plateau na Zal Bambey du ko may téye. mais yaa ngi ci yaa ngi waaw maa ngi ci entraînement parce que biñ may woo di ma wax combat bi maa ngi woon ci àll bi parce que problème mu adversaire la amoon kon tey jii buñu ñu demee tey jii ba Zal Bambey jël ma rek dama ciy sant yàlla bu baax a baax waaw di wax ne kii tamit sama rakki bopp la waaw dëkk fi nga xamante ne nii mooy Mbambilor ma yoroon fa salle de musculation di leen préparer. kon te jii ndam li dama ko ko yéene da nekk ndam loo xam ne ndam lu ko jig la ba yàlla suñ borom def bu nekk roi des arènes ñu ngi ko koy ñaanal yéen tamit ñu ngi leen di bu baax a baax di leen ñaanal jàmm te ko sàkku ci leen bu baax a baax yal na leen yàlla suñ borom teral ci barke Serigne Saliou Mbacke di ñaan sëñ yi daal di Mbacke yàlla na fi yàgg te wér. mais eh, Bambilor ci baa di la waay maa ngi bu baax a baax. mais booy bi da nga ko jaay doole de. waaye saa waay saa kii mag la kii wallaay azim man xale laa. mais yéen ñaar ñëwal ñu ci da ngeen a leewaatoo. ah. da ngeen a xale laa du ma xaar ku yàlla bind. waaw xale bu ndaw damay dem. parce que ma damay dem lépp damay dem. Ah. waaw. bi ma sa ma sama troisième combat troisième victoire. Ah. waaw. instant bii nii fan nga jëm. dama jox samay morom. dama jox ponk lii sama morom. ñoom kan. waaye ku si mel ni ñu may jox samay morom du ma tudd tur. ba léegi a waajal. da a a tudd. non ragal ma ragal. dama jox samay morom. ma joxoon suba suba pare naa di gërëm ñëpp di sant waa Bambilor yëpp di gars yi ne gars nañ ma jàppale nañ ma jàppale suñu ma jàppalee am mbër dégg daal mais suñu ma mu mën naa toog xaar garaawul mais nañ ma jàppale bu baax waaw waaw ma ginnaaw suma nuyoo ñëpp sant Bambilor yëpp commune bu Bambilor sant mbër ya fa nekk yëpp kii xale la mu ngi ci yoon damay ñaan autorité ya fa nekk yëpp ñu jàppale ko parce que ndaw bu nekkee ci dara bëgg làmb gëm ko am lu nekk ci ginnaawam liñ mën a def mooy ñu jàppale ko li ñuy def ci nawetaan di ko def ci bu buñ ko jàppalee seen doom yi nekk ci zone bi ñu ñu dégg leen ci làmb te mbër day yóbbu tur tur dëkk te ñii ay ay mbëru dëkk lañ kon dañ leen a war a jàppale ñu ngi woo autorité yëpp di woo monsieur la maire Ndiagne Diop di woo Pambay promoteur di woo képp ku nga xamante ñu jàppale ñu ñëw jàppale booy bi. solo suñu waaju baax y' a trois combats yëpp fii nga ko bëree. non deux combats laa bëree fii nii. Ah. benn arène nationale. benn combat nga bëri arène nationale. waaw benn combat laa bëri arène nationale waaw waaw. mais góorgóorlu boo boo góorgóorlu mën ngaa dégg daal. du leer du leer di di seen bu baax di seen sama gànnaaw bi tamit. jaajëf kontaan nañ ci. waaw mais ñu ngi gën a rafetlu rek di wax ne autorité Tëngéej ji nañ jàppale mbëru dëkk bi parce que tey tey jii nii ki nga xamante ne nii mooy Petit Baye Fall numéro moom mu ngi waaj man maa ngi waaj te arène nationale lañ jëm kon tey jii dafa jot ñoom ñu jàppale ñu. mais ne di ngeen xeex. non man moom pare naa. bu xeex nga daje. man déggoo li ma la wax man li ma gën a neex mooy damay bëre samedi. sama leer leer na may du la déggoo li ma la wax de waxoon nañ ma ko ci contre Libidor. waaw Libidor waxoon nañ ma ko ci contre ak moom. te Thiel bi muy am 9 combats 9 victoire ci man la jëlee défaite. Ah. ci man la jëlee défaite Kéréma ci man la jëlee défaite. Youssou Diongo bu ginnaaw raay ci man la jëlee défaite kon man du ma bëree 11 combats. Ah. di replier wu di calculer kenn ci làmba ji parce que tey daa am lu tax ma jël ko parce que bi ma bëree ngeer ba léegi proposé nañ ma presque quatorze adversaires ku ñëw mais mbër yi nañu bàyyi ñuy dox sa combat ak sa adversaire nga naan noonu nañ ma envoyé photo wala vidéo am. <laughs> ah mais loolu gënul. non loolu gënul. léegi de loolu moo xam. 2009 laa bëre sama premier combat jour combat Garga Mbossé ak les deux maa bëre spécial bi. sama adversaire ci biir géew gi laa ko gisee te sëñ Modou Niang maa ngi koy ñaanal sëñ Modou Niang maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla suñu borom xale àjjanay fil daw si parce que kooku tey jii nii ñun bu ñu demee ba dëkk daali moom la ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax di ñaanal képp koo xamante ne ni moom moo nekk ci ginnaawam ak ay njabootam di wax ne waa Tëngéej nañu waajal kii di maire Omar Cissé ñu ngi koy wax na ñoo jënd bolo gi Séga Ndoye ñu ngi koy oo pour mu jënd bolo gi góor gi saw commissariat Guy Mouride. yaa ñëpp. maa ngi woo ñëpp di Guy murit ki nga xamante ne mooy assistant fay assistant Sène assistant Guèye di oo waa beer bi di oo ñëpp commissariat Guy Mouride jour boobu la 12. ñëpp ay soltani yi ñëw taxaw ma soltani yi bëre jàpp ko daan ñu ñibbi. yaa wax la tëni laay bëree bu jour boobu. <laughs> nee tëni lay bëree de ndeysaan mi ngi noonu nga xamante ni nii tey loola waaw waaw Eumeu Sène Junior Eumeu Sène Junior borom Tëngéej yow après da ngay ñëw toog maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay Bamba. Euh, gannaaw bu ñu sante yàlla julli si yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur waaw di nuyu waa Tëngéej yëpp euh, rawatina waa Guy Murit tali wu bees di dem ba sama dëkk jagle di leen nuyu bu baax di leen siyaar. tey lu waral teewaay bi. tey dañoo ñëw rek euh, pour accompagner suñu frère sita parce que dafa am combat moo ngi nii moo war a sëgg nii di ko ñaanal yàlla suñu borom defal ko ndam. mais foo waaw ñu ngi si préparation. yaa ngi waaj waaw ñu ngi waaj bu baax instant ah. waaw. ku amati. ah. ku amati sax Laye Birisili. Laye Birisili waaw. bu Kër Mbaye Fall. waaw keroog yéen a yéen a yéen waaw ñu ñëw fës fës waaw. mais ki ngay bëreel ndaanaan la naa la ko nee naa la ki ngay bëreel combat am yu bëri leen a yóbbu top 5. waaw ndaanaan moom yaakaar naa soo ko bëggee doon faaw nga daan ndaanaan. Euh, Laye Birisili damaa dégg ne ndaanaan la. te man ndaanaan laa bëgg a doon. Ah. moo tax ma jël Laye Birisili pour. mais yaa ngi koy waajal. pare naa combat bi su nekkoon tey tey pare naa. ci xeex ci ci ci bëre. si lépp. kon yaa ngi ci ñaata trois séances laay def. par trois séances waaw. bariwul. non bariwul bariwul ñun ay xale lañ. dañoo bëgg def lu nekk ci làmb. moo tax faaw ñu daj lu métti. mais loo koy wax mi ngi jàkkaarloo ak yow. kan la laay brésil laay brésil man li ma lay wax moom bariwul. loo mun a waaj rek waaj ko parce que xam naa ne bés bi du yomb si yow. Eh? la teg lu métti incha allah eh? waaw. kontaan nañ ci waaw kontaan nañ bu baax parce que euh, damaa am jour boo xamante ne sama mag Boy Naar Fall daa war a bëre le 12 man ma bëre le 13. di ñaan yàlla sunu borom defal ñu ndam ñun ñëpp. di woo autorité Tëngéej yëpp ñu ñëw jàppale ñu. Euh, parce que dañoo bëgg a def lu doy waar ci làmb ji incha allah di nuyu bu baax ñoom Grand Talla ñoom Khadim Thiam ñoom Baye Moussa sama koñ bàyyiwuma kenn sama kër Paja maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu waa kër ga sama toos Abdou Sarr sama grand Biram maa ngi di nuyu bu baax. fépp fu waaye mun a nekke rek doon doomu séeréer ñu ngi lay tàllal loxo nga ñaanal yàlla sunu borom defal ñu ndam incha allah. kontaan naa ci yow. ok merci beaucoup jërëjëf ndeysaan kooku mooy Eumeu nga xamante ni moom it ndeysaan moom moo war a bëre ki nga xamante ni moom mooy Laye Bruce Lee waaye defe naa nit fii lay amee mbër mbër looy nappe ni waaye maa ngi nii xam nga foog ma garaaw garaaw pour ah. xaar ñu ñu jël combat bi après après après doog a ñëw ci yow taxawal ni tuuti ndaysaan taxawal ni tuuti ndeysaan mi ngi noonu nga xamante ni ndeysaan ñaari mbëri ñu ngi ci digg géew bi ñu ngi ci dernier réglage yi fi mu ne nii arbitre bi moom mooy waaj a siffler combat bi nga xamante ni nii Siteu moom it. Siteu songaan Gueye ak Siteu bu songaan Gueye. Sakaase bu Kër Mbaye Fall. ak Sakaase bu Kër Mbaye Fall. ñoo nekk ci biir géew bi. ndeysaan mu mel ni Siteu mi. Sakase mooy Ndamali waaw. waaye Bamba Thiam. Oh. est que xam nga ne yàqkat bi mbaa na yàq tey. muy kan Sakase. Sakase Sakase yàq la. waaw ah, Sakase de lu doy waar. ndax na yàq. tooj nañ ko fi ci kaw mu sangoo butéel. ndeysaan at bi bisif la na combat bi. te bu songaan ngay ak Sakase moom moo nekkee à gauche Siteu moom moo nekkee à droite. Sokase ngay xeex ak moom. Siteu bu songaan ngay. ak Sakase. Sagasa mi ngi dox Sagasa mi ngi dox di jëm ci moom. Siteu ngay def un pas par pas pour reculer waaye loolu duma ko ci topp. ñoom ñaar dañuy xeex. dañuy raak dafa mel ni raak la ñu woote. dañuy woote raak Siteu bu songaan gay xeex la ñu woote ñoom ñaar. Sagasa moo dafa mel ni moom moo gën a avancer avancer ndax moom moom mooy dox di jëm ci moom. ñii tey association raak. waaw xoolal ma li yow. Siteu bu songaan. mais li def nii ba wóor. ak Sagasa. seen loxo yaa ngi ci kaw te sóoraale wuñ seen suuf. loolu mooy jàppantam kaw. ndaysaan Siteu bu songaan ngay sakaase. Siteu bu songaan ngay ak sakaase ba léegi. sakaase laa laa xila laa Siteu songaan ngay moom moo doon aller ak retour. moom waaye di nuyu waa groupe Bawal TV international bi yëpp maa ngi leen di nuyu. ndaysaan waa Italie ku ci mel ni grand Thierno Ndiaye Modou Mamoul. nuyu ki nga xam ne ni moom mooy euh, Ndiaye Diop bu Garga ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen wax ne tey ñu ngi fii ci Tëngéej Siteu bu Songane Gueye ak ki nga xam ne moom mooy Sagacé Sagacé bëgg na ko pàdd Sagacé waaye xoolal ma mbay cuun tàggatul ah mais fi mu ne nii làmb day garaaw jàpp na ko Siteu bu Songane Gueye jàpp na mi ngi doon ci suuf waaw loolu mënta ñàkk li muy xool doyatu ko ndeysaan ñoom ñaar ñoom ñaar ñu ngi jàppante Mbaye Thioune ñoom ñaar ñu ngi jàppante ba du génn Mbaye Thioune tey ñu ko weer lam doon xool doyatu ko ndeysaan ànd ak mbër dafa metti ndeysaan ñoom ñaar ba léegi ñoom ñaar ba léegi ñu ngi ci watu saako yi fim mu ne waa jege nanu saako yi waa fi ne ñu ngi ci watu saako yi Siteu bu songaan ngay sakaase ndeysaan Siteu sakaase ña nga jàppante diglu ah Bamba Thiam lu xew. waaw dañuy génn eh buñ buñ buñ arrêté bul dóor loolu mën nga am yo daan mën na la ca man nga ci am avertissement. waaw loolu mën ta san ndeysaan ndeysaan. Siteu bu songaan gay. Siteu bu songaan gay. ak sekaase. ak sekaase. ndeysaan. Siteu ndeysaan ñoom ñaar at bi bi sifle waat na combat bi ci diggante Sekase ak ki nga xamante ne nii moom mooy Siteu bu Songane Gueye Siteu bu Songane Gueye moo nekkee à droite waaye Sekase moom moo nekkee à gauche jàppante kaw. ndeysaan Siteu Sekase fii ci stade Ngalandou Diouf 23 waxoon naa leen ko. ne leen leen promoteur bi fi wootee mooy l'homme de tous les stades au niveau Sénégal stade bu ne nuyu na ko stade bu ne nee na ko salaamaaleykum waaye stade yëpp a ko fay nee naa la dem la Kaolack ndangaan dem Touba Toul ndaysaan wër dëkk yi ñëwaat dem fi nga xam ne moom mooy Diourbel ci stade Ilimanel Fall Iba Mar miin na ko arène nationale moom wérantewul lu ni mel. waaye tey fii ci Tëngéej fii la fas yéene tëje saison di combat yu doy waar combat bi nekk ci biir géew bi mooy Sakase ak Siteu bu Songane Gueye ba tey ñoom. ak Siteu bu Songane Gueye ñoom ñaar. raak la waaw ñoom ñaar ba léegi ñu ngi xeex seen combat jàppante nanu jàppante waat. laaw laa gis léegi te baaxul. waaw laaw. laaw man na ñàkk loo ay bëñ. am na seen day laaw. mbër mu fi ñàkk ay bëñ en général laaw ko yóbbee. maa moytu laaw. ñoom ñaar Siteu bu Songane Gueye. moom mooy Sagassé. Sagassé kenn ku ci nekk rek jàpp na. ndeysaan. mi ngi dóor ci suuf. Siteu bu Songane Gueye. ak ki nga xam ne moom mooy Sagassé. ndeysaan xale yi seen combat dafa neex. ñi ànd ak mbëri seen xel yi dalul. xam nga xale yi ñooy bëre ñooy xeex. waaw. combat yëpp combat espoir ci dàq. maa la wax li ni mel. ndax espoir yi dañ ciy def li ñu am. moo tax xale dañoo jar a fay. def ci li man mu jaral leen teg ci ñoom lu amee combat la ñuy gis mooy bëre ko mu jeex ñu nekk ci leneen lool mooy avantage bi ci ñoom waaye mooy avantage su ki nga xam ne moom mooy promoteur bi. Ndeysaan Siteu bu songaan Gueye Sagase. arbitre bi àtte na leen dañoo mi mitaan nañu ñoom ñaar mitaan nañu mitaan nañu ndeysaan ñoom ñaar bëri nañu ba mitaan nga xamante ni làmb la joo xamante ni nii ndeysaan ñaari xale yi dañoo xeex waaye tamit dañoo bëre loolu dafa am solo mbër maa ngi lay nuyu. doom nday fay naa la lu bëri bëri bëri. waaw maa si jaamu maa ngi sant alhamdulilah. waaw booba léegi dañu toog di xaar combat nag. billaahi gars yi daa mel dañu ragal koo ne bàyyi mu delloo avance. yow koo bëgg a billaahi wala ñi ma bëgg a bëreel xam nañ seen bopp mais xam nga mbëri ragal. yàlla xam nga bul lim benn ma sama adversaire potentiel gars leen bàyyi naan ay damay bañ lim bu ngeen ko waxul nan la xam. nañ parce ñu ngi di contact di leen wax mais koo si bàyyi waale mu ruux ñoom xam nga lu mbër muñ naan am na ñaar defet trois victoire mais boo gisee palmarès bu war a rafet maa ko mujjee daan mais da nga war a bëre. spécial combat abooy caatu montagne. mais ñoom samay morom lañ xam nga. mais gars koo wax day dem ba si biir ruux quoi. lamb dañuy may na xaay maag appliqué ñoo waroon bëre le 29 bi journée sëñ Modou Niang drapeau Abdoulaye Wade bi. Abdou Gueye ak euh, Ousmane Gandigal maa doon spécial maag appliqué. mais barki démb lañ ñama su waaye delloo na avance bi dafa metti quoi. xam nga si ay mbëru ndaw ñooy may na xaalis ay benn combat benn saison dafa metti trop. te ñun ndaw tëngëj lañ quoi xam nga nekk si lamb di góorgóorlu donte yaakaaruñ si am na si leneen luñ jàpp mais tamit xam nga day yoon quoi parce que doole ji du la fi xaar waaw ah, nañ jëlante ñu bëre loolu wax quoi waaw ah, noonu la demee nag bilaay walaay mais mais noo gisee làmbi tëngeej waaw làmbu tëngeej neex na ku xool xam ne ak auparavant wute na quoi fii ak bu njëkk instant làmb ji avancé ñu ngi bëre xam nga gars yi si gis seen bopp parce que tey da daanaka mën naa ne combat bu ne benn mbëru tëngeej ak beneen mbëru feneen quoi sponsor di ñëw gën si jàpp quoi waaw mu gën a jëm kanam waaw mooy loolu di wax Bantamba TV nag waaw moom la ñuy topp mooy suñ télé. waaw la télé leader laay wax sax man mooy man. kontaan nañ barke yàlla am leen jàmm rek taw feeg tey di nuyu sama copain sama copain Petit Petit mooy sama gars man. ah Petit non man Momadou mooy sama lonko. Petit xewi na. non moo xew Momadou day xaar xanaa xamoo loolu. ndeysaan mi ngi noonu jërëjëf ndeysaan waaye xam naa ni ñu ngi ci deuxième combat bi fi mu ne nii ndeysaan ba tey di Siteu bu Songane Gueye ak nga xam ne moom mooy Sakaase ñu nekk ci biir géew bi ñoom ñaar Siteu ak nga xam ne moom mooy Sakaase ndeysaan at bi bi sifle na combat bi ñoom ñaar ñu ngi leewaatoo ci diggante Siteu Siteu bu Songane Gueye ak Sakaase ndeysaan ñoo nekk ci biir géew bi arbitre sifle waat na Siteu Sakaase mu ngi noonu ñoom ñaar. ndeysaan ñaar ñoom ñaar ñu ngi leewaatoo Secasse ak Siteu bu songaan gay jàppante nañu loxo kii jiital gauche kii jiital droite ñooñ saan Siteu bu songaan gay sànni na Siteu daw na laay laa xëy la laa Siteu bu Siteu bu songaan gay ak Secasse ñoom ñaar. daw na jàpp laay laa xelal laa jàppante na nu bëgg na ko takk Siteu bu songaan ngay sékaase sékaase bëgg na ko cabaxal wala lan la bëgg ba léegi. Siteu sékaase ku ci nekk da nga bëgg a nax sa moroom waaye sottiwul. ndeysaan sékaase sékaase nga koy buux laay laa xelal laa lu nar a xew dañuy génne wala ñoom ñaar ndax day koy mot ndax da koy mot ñoom ñaar ba léegi ñoom ñaar ba léegi. laay laaxee la laa ñaata xale yi ñu ngi bëre de. Siteu sa ndox baa du ko fàq. lu ne mën naa xew Bamba. ndeysaan ñoom ñaar dafa mel ni dañu xaw a neexoo. ñoom ñaar bëgg na ko fàq ba léegi. waaye Siteu bu songaan Guèye bëgg na ko fàq. jugaat nañu. waaw ba jugaat. ndeysaan. sa gaase Siteu. ay waay ana seize. mais xale yi xaa léegi tegal seize amatul. dañu koy fàtte. dañu koy fàtte ci làmb la. oh. fàq boobu ngay fàq. demaat nañu ci maytul mën nga ci am lu la bett. ndeysaan. xoolal ma lii. ay waay xale yi. ah ñi ci saisi sax amatuñ jàmm. ma ne lu nar a xew. xoolal ma lii. kenn toogatul. oh xale bi amat na lu neex. ku ci nekk bu ñu jàppoo sa mbër da nga yaakaar ne. fali laay alhamdu. moo tax xale yi faw ñuy contact. di jàppante di dem ci géej gi di dem ci diini yooyu dafa am solo. da ci am solo mbari loo entraîné doyul loo am li nga xam ne ni moom mooy physique doyul. maa day ko ndeysaan saa su nekk rek war ngaa pare mbër saa su nekk war ngaa pare Siteu bu songaan lay sagaase waaye combat Ama léegi daa yàqu ah Ama Ama Dia léegi daa yàq mais da nga da war a xool lu ko yàq ba kii mi ngi noonu rek <laughs> ndeysaan ñoom ñaar ba léegi ñu ngi jàppante fi mu ne nii fi mu ne bëri ba mi-temps waaye ñëwaat nañu mais seen combat ba léegi daa met ndeysaan ñoom ñaar nee naa la ku ci nekk li nga bëgg la sa morom waaw dañoo bokk ay bëgg-bëgg voilà mi ngi noonu exact dañoo bokk bëgg-bëgg du mën a yomb waaye Naar Fall maa ngi koy nuyu ma nga jaaree national alaaji naar maa ngi lay ziar bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay wax gars yi ne ba tey ci Bawal TV man ngeen koo jàpp tuyoo bi ak Bantamba TV fii ci stade Ngalandou Diouf ci Tëngéej mu mel ni sekk ndaanaan ak ki nga xam ne moom mooy Bamba Thiam ñoo fi ne nee naa leen troisième catégorie ancien gloire bi la. déggal loolu. ah dawuma loolu damaa teel a bàyyi damaa bokk ci troisième catégorie. yow champion nga. ndeysaan ñoom ñaar ba léegi ñu ngi jàppante fi mu ne nii. ndeysaan mi bi atte na leen. dangeen di dem ci digg géew bi. ndeysaan atte war nañu. waaw digg géew bi ci la lépp di xewee. waaw. ndeysaan. lii leer ci digg bi lay leeree. waaw waaw. ndeysaan liñ naan lii jot jot na. waaw. ay ay du weesu bàyyi dee na sax xamala. maa la wax loolu. ndeysaan. waaye kenn du demba ba. ndeysaan mi per dem ba kenn du moom nga xamante ni nii. ku nga xam ko ci ay way ku nga xam ko ci taaral làmb moo tax xam naa ni bu bu combat bi jeexee dinañ ko jël ñoom ñaar ba léegi at bi bi sifflé waat na loolu am na solo ñoom dañoo bokk ci liy neexal làmb mais ay lamb lamb mënoo cee jëlee ay way déet boo ko ca jëlee kenn xamul làmb la wala lan la maa la wax la bu boobaa làmb yooyu du saf làmb maa la ko wax làmb ju amul waykat ah. amul tëggkat ah. loolu du làmb kafe ko kafe ko amul suukar loolu réunion la rek ndeysaan silence ndeysaan mi ngi noonu ñoom ñaar ñoom ñaar dafa mel ni coono la ndax kenn kenn bëggatu cee dem de mbaadu coono day bëgg a feeñ kenn dematul dem ñoom ñaar ñëpp a ngi taxaw jàkkaarloo kii taxaw di ko xool kii taxaw sëgg ñaari mbër yi dafa mel ni tey lañ yaakaaroon amul ñaari mbër yi ku ci nekk la nga yaakaaroon ci sa morom amul laay laa xelal laa Segase am na benn waaye Siteu bu gi am na ñaari avertissement kon Siteu ci boppam moom moo war a dem ndeysaan Siteu moom moo war a dem lii muy def arrangé wu ko. Segase moo ëpp avantage. moo ëpp avantage fi mu ne nii moo tax bu ma doon Siteu man maay gën a bëre. waaw Siteu Siteu jaayanteel. ma ko Siteu jaayanteel. waa Siteu fi ne nii moom. moom ma war a attaqué. luy jot nag jaayanteel. jot jot na moo tax fi mu ne nii ñoom ñaar ñëpp nangootunoo bëre. te Siteu xamul ni fi mu ne nii bu combat bi jeexee nii moom mooy ñàkk. Siteu est-ce que est-ce que ki ko toogal sees wax na ko loolu. waaw loolu tamit a ciy baax. da ko ko war di wax mbëri fi ñu toll ki leen moo tax mbër da ngaa war a nekk nan te mbër. waaw ki seet fa ne nga war a jàkkaar lool. di ko xool nga xam ni des fois da gis. mu liyaar la. mais lii tamit lu doy waar la ci la. waa lii lan la. lii lu doy waar la xoolal ma lii. waroo ko war a waaw waaw deuxième avertissement. troisième pour Siteu. lii du yoon. xam nga loolu dafa doy waar. loolu dafa doy waar moo tax arbitre bi sifflé waat na combat bi. arbitre bi sifflé waat na combat bi jeex na waaw waaw Siteu yow yaa ñàkk. yow combat bi mi ngi toll fii nga taxaw mel ni ku ku ah waaw waaw Siteu Siteu yaa jaay sa làmb de Siteu kenn jaayul sa làmb yow yaa jaay sa moom lañ gañe Siteu moo gañe ah kon yow Siteu moo gañe Siteu moo gañe ndeysaan ko Siteu moo gañe ndeysaan mi ngi noonu mbër maa ngi lay nuyu maa ngi fay bàkk bi moo la sonal wala non sonu ma sax ah. non ko sax damaa gis nga ñàkk waaw dama am doole rek dama entraîné guddeeg bëccëg yow yaa am petit ñaa am anamu ban petit ñaa la ñaa benn bu yëmbal ah. waaw waaw ah. ki nga am daanaan la de mais loolu lépp mënuma ci wax lu bëri parce que gisuma ko waaw ki nga am barki de moo Ndiaye rek la jugee arène nationale. waaw loolu dëgg la waaye man dama di xelal ne ci yoon ñu yaakaar ma yónni ma yàggamti ma xelal laa taxawaalu waruma te daa am lu topp sama ginaaw te combat bi ci laa koy wane ne man ñi may bëre duma seen morom Petit Niang taxut may liggéey barki Seydina Mohamed li nekk sama ginnaaw dafa bëri te ay wax ñu ngi may sonal fi mu toll ñi may bëre nii du ma seen morom ñi ma bëgg a bëre àggaguma ci ñoom. te ñoo ma war a jël mais sama combat ak Petit Niang lii du combat jóg sax. Eh, maa ngi sant waa Bawol gépp nag bàyyiwuma kenn surtout ndereb ga ma maa ngi di sant bu baax di leen gërëm waa Réfan boox waa Njarno ñoo ñëpp maa ngi di sant bu baax di leen di sant waa ndereb gépp waa réew maa Bawol ndangal ma Mérina Sarr ci la sëñ Mbacke si la maa ngi lay sant bu baax di la gëm sëñ Ibrahima sëñ Ibrahima Sarr Mérina sëñ Mor Toubatul ñoo ñëpp maa ngi di sant bu baax di leen gëm di sant waa Touba bu baax a baax di sant Mbaye Jaxate ak Tafa di sant sëñ Mor Mbacke ak sëñ Amdi sëñ Jili Bousso maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm gis naa ni ñu ma taxawoo ñu ngi may ñaanal guddeeg bëccëg di ñaan nag yàlla Assane Ndiaye ngir yàlla date bi na gaaw ma bëre ko parce que damaa yàkkamti es bi war a bëri ñeenti combat ba juróomi combat ci saison bi barki Seydina Mohamed bu ñu ko tëgoon dimanche dimanche ma bëre ko barki Seydina Mohamed la 30 bi duñ ma ko joxoon ma bëre ko mais yaa ngi wax nii rek mais la ma neuf combat laa maa ko jàmbaar la maa ko gën a nekk jàmbaar maa ko gën a nekk nadaan maa ko maa ko gën a mitig bañ. Ah, bawal day ndaanaan dafay ne. loolu nag di woo suñu mag Tafatine di woo sama papa Bada John Ilimane Sarr village ak Igri ba yëpp kenn ñi fa am yàlla may leen ndam di sant ñëpp bàyyiwuma kenn. kontaan nañ ci yow. kontaan nañ ci yow wax di leen ñaanal yéen itam lii ngeen dem ba doon ay télé yu mag a mag ci barke Seydina Mohamed di leen di ñaan nag ngir yàlla Assane Ndiaye date bi na gaaw barke Seydina Mohamed loolu rek laay ñaan na date bi gaaw parce que waa Ndereb dañu maa yónni yàggam diwoon te wax ji bëri na torop mais yàlla xam na yàlla nañu yàlla atte ñun ñëpp ñu xool ñu teg suñu bët li ma sum yàlla naa ko àggali ci barki Seydina Mohamed wax ji bëri na torop maa ngi sant sama yaay bu baax man ku ma bëgg a toroxal dangay ngay son sama yaay damaa ñaanal maa ngi sant sama yaay bu baax a baax ak sama papa aw ma seen fay sama yaay ak sama papa maa ngi leen di ñaanal yàlla ñu fekke sama njariñ maa ngi leen di ñaanal ci barki Seydina Mohamed ñu fekk sama njëriñ athlète bi yow yaay jaan Petit Niang athlète yow laa jox combat bi yow yow yaa mag bi kontaan ci yow. waaw kontaan ci yow bu baax a baax. Ndeysaan mi ngi noonu ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax nga xamante ne tey face to face bi la ci digganteem ak Petit Niang ah loolu mënta ñàkk mais <laughs> mais mënta neexoo xàmmee de. waaw mais bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bëreewul ay ay ay ay jaaydaar la ñuy doon. waaw mais bu ñu bu ñu waree bëree dañuy xaja xajam. waaw mu ngi noonu. <laughs> ah Tafa waaw Tapha Gueye mu ngi fi mu ngi fi mu ngi taama mu ngi si jàmm de waaw mu ngi si jàmm waaw. mais ci loolu. maa ngi nii maa ngi sant bu baax maa ngi sant yàlla bu baax waaw alhamdulilah. ba bàyyi la nga nuyoog waaw ginaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur ñu ngi nuyu waa Tëngéej gi yëpp di nuyu waa àdduna xam nga di ñaanal suñu fereer yi war a bëre ku si mel ni Petit Baye Fall yàlla may ko ndam di ñaanal suñu beneen frère jibitam yàlla may ko waaw. waaw teewaay bi li ko waral mooy làmb dafa am tëngéej te ku ne tëngéej ne Tidiane fay damaa bokk si tëngéej te bu làmb amee tëngéej dama war a ñëw ba pare teg si samay rakk ak samay frères yi nga xam ne ñoo doon bëri ñoo ñoo ñoo gën a tax ma ñëw ku si mel ni Petit Baye Fall ku si mel ni euh, mbër bandi ak yeneen booy si des yëpp looloo ma indi quoi. mais daan nga nag fan nga jëm fi fi ma jëm ñëpp xam nañ ka samay grand ña laa bëgg ñu may ma chance. ku si mel ni tey. waaw Nandi Fall na ma may chance. ku si mel Nandi Fall Nandi waaw dafa ma war a may chance. parce que ku def 12 combats 11 victoire benn defet Nandi Fall war na mën a may chance. ak Jokal ak Onde le Fou nañ ma may chance. waaw ña laajuma sama benn. morom Onde le Fou. waaw gëj na bëri depuis 2018 na ñëw may ma chance ñu ñu neexal ka. gis na ni mu def aada Fass. waaw mais ma ah, ne aada ba pare ne Tidiane du benna ah. du benn billaay du benn. di ñaanal sama fereer yëpp yàlla may leen daam kontaan naa. kontaan di sant bu baax maam Cheikh borom Tëngéej. jaayoo jërëjëf ndeysaan mu ngi noonu ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Tidiane Faye numéro 2 waaye nag mbokk yi ñu ngi toog ak tamit koo xamante ni moom it mi ngi jàppale waa Tëngéej mi ngi jàppale mbëru Tëngéej nga xamante ni barki démb Ndiaye rek moom it fii la jóge yàggul dara te am na yeneen i yoo xamante ni ci la jëm xam naa dina ci indi ay leeral Pape maa ngi lay maa lay fay di la ziar baax di jox sa wàccuwaay di kontaan bu nag. waa mais suñu frère dafa la muy Assane bool production ñu ñëpp benn lañu euh, ku xewle rek sa morom boo jàppul dara nga bàyyi ñëw looloo war a tey ñëw fekk suñu frère Assane ba pare teg ci mu tëgg suñu dëkk tëngeej lu ñu mën def ak lu ñu mën jàpp rek nga fay bàyyi ñëw waaw looloo waral teewaay bi. mais sànq ma am na ay xale yoo xamante ni maa ngi leen di laaj mais boo waxee danaa ñu ngi sant yàlla ndax léegi Pape ñëw na léegi ñu ngi ñuy tëgg. waaw loolu la xam nga ñun maanaam kon boo bokkee si si gox. Euh, bu la yàlla mën noo dara boo yokkul da ngaa wàññi te bëgg ñoo bokk ci ñi nga xamante dañuy wàññi dañoo bëgg a bokk ci ñiy yokk loolu waral ñu boole li ñu mën ak li ñu mën yëpp pour jéem a jàppale booy yi parce que boo demee CNG dafa nekk ci ay licencié dafa bari trop te bu ci kenn jàppul rek du baax looloo ñu indi si làmba ji waaw. mais fan lañ jëm. waaw mais ñu ngi doon préparer le le treize bi bu ànd ak dogal yàlla ci laay bilichirine 2 ak ak duubal moom lañ bëgg nii ci kàttanu suñu borom boobu sax xam naa ne Bantamba TV en direct lay doon waaw moom lañ ci bëgg a liggéeyaat incha allahu rabbi am na am na am na yeneen i bis tamit yoo xamante ne nii wala yeneen i journée yoo xamante ne li ci ñëw déwén yàlla saa yàlla saa borom bi dogal na am na ci bu nekkoon mu yàqu mais dañuy wax ne gëneel la rek muy muy mooy mooy mooy euh, kii fii fi kii euh, euh, kii Mamor Mamor bu Faas ah, ak ak ak kii ak ak fils kii waaye doomu doomu kii bi Jules Balde bi doomu Jules Balde bi nu mu tuddati. Euh, waaye doomu Jules Balde bi. Jacob Jacob Balde. Ah. waaw nekkoon nañ ci. Ah. ba amoon ba sori woon ci mais dafa mu yàqu. Ah. waaw wax dëgg yàlla. mais lamb la woon mais lamb la woon kay. lamb espoir la woon tamit aussi. mais Jacob Balde ak Mamor bu Faas mais lamb dafa yàqu. mënuñu si dara mais ci kàttanu am na lu ñuy waaj. am na lamb espoir bu ñuy waaj bu bu mag sax. boo xamante ni ci kàttanu suñu borom. balaa le treize dina taxaw. te bu taxee incha allahu rabi moom mooy première face à mais bisu la nañ cee gis ay surprise xamante ne dina am. waa ci kàttanu suñu borom bëgg nañ ci ay surprise le treize yu bëree bëri yoo xamante ne incha allah rabi dina ci am incha allah kontaan nañ ci yow. ñoo gën kontaan maa gën a kontaan ci waa Bantamba TV bu baax di leen sant di gërëm bu baax baax di ngeen ne fi ngeen teg seen tànk foofu la bu leen ko benn yoon parce que yéen a ngi ci lancé bu baax macha allah. kontaan jërëjëf jërëjëf Pape ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax nga xamante ni moom it ndeysaan ndaanaan la mi ngi jàppale mbëri Tëngéej mbër ko la toogloo ci kaw yow yaa ngi war a toog fii nga toog ci kaw ah mbër xanaa da ngay tooñoo. non tooñu ma kii sama doom day la. combat bi daa jël xaalisam bu bari def ko si. billaahi jaana terrain ndax man. billaahi walaay. tey jii xam nga lu ma la wax combat bi dañ si déggul ne. tey nag boo gisee la moo tax ma jooy. sama gaal la barki alxuraan dama fa ñaari dëj yoo xamante ne nii maanaam xam nga dafa tegaloo sama rakk dafa gaañ muy maanaam kii dafa gaañ. yaa kii gaañu nii sa rakk la. sama rakk la sama yaay ak papaam waaw sama yaay ak papaam ñoo bokk ndax baay ñu bokk benn kër. yaa ngi dégg ba muy gaañ mu fekk ma jolof ma doon bëre foofu benn mbapat dan ma ko wax ma ko xëy laa ñibbi teguñu si teguñu si tuuti sama tante gaañu matul une semaine barki alxuraanul karim tey loolaa bëre waale musuma jooy si làmb mais tey sama xol dafa dem si ñoom moo tax ma jooy mbaay man champion laa Tëngéej dañ ma war a jàppale. barki alxuraanu karim. mais damaa bëgg nga ñëwal ñu ci combat bi yéen ñaar da ngeen a leewaatoo mais combat bi dafa yàgg lu tax. combat bi boo gisee la moo tax mu yàgg. damaa xam ne sama dëkk la. tey jii waru ma mën a ñëw saax saax sama combat. bañu ma si fii ba suba mais war na yàlla xam nga bu ma dee dee dee sax mu jël sama bakkan du ma daan. mais lan moo ngeen ñëw ngeen ñëw ba temps bi di waaj a jeex yéen ku ne taxaw. mais moom moom daa am lu mu doon wax si signature bi. xam nga mu ne su ma taxawee dëggal sama bopp. xam nga mu ñëw fekk ma foofu noonu dafaral ma mais loolaa doon xaar si moom gisuma ko man tamit nit ne léeg la mën a doon xam nga nit ku ne na am kilifa xam nga ma déglu samay kilifa ñu ne ma bëreel nii ak nii tey jii lu ma conseil man moom laa bëree ma loolu am si ndam ndam amee ko nu na baax na na arbitre yëkkati sama loxo rek mais daanul jeex na boo déggee xaadaa ma xaat comme foues damaa ñibbi samay mbokk di sant Alaaji Sarr xam nga ko ma ko sita maa ngi koy sant bu baax a baax a baax jàpp na si combat waa januar njaaroy Diof Yor. bii mooy sa ñaateem combat. bii mooy sama septième combat. six voilà am. ceeda fi mu ne nii fan fu fu nekk nii. gaa war a ñëw ñu bëri xam nañ seen bopp. ñan la ay Liis Ndiago. Naaru Sogas dafa mbër. barki yàlla war nañ mën a. ñi ngay ñi ay ay mbër mais man lan laa man champion laa si biir champion. di sant Mamaya di sant Biddew bu mais sama waaj dama bëgg xola naka gaay yi jël gaay yi nañ ko jël kii maa moom ay seex leen billaay walaay moom xam na nu mu demee sax man abara xam nga kenn mënul yaatal lépp xam nga guubi ma fi kenn mënul yaatal lépp damay bàyyi maanaam xam nga rek temps bi dafa xat. kontaan dafa loolu. dinañ waxtaan waxtaan waa écurie. maa ngi sant waa Fass waa Tëngéej waa Dar Salaam Nimizar Barada bàyyiwuma kenn maa ngi sant Mamaya bidéo bu Tëngéej maa ngi sant ñëpp sant sama supporter dinañ ñëw ñu yaat dinañ ñëw waaw incha allah mi ngi noonu ndeysaan nga xamante ne nii am na solo combat bu métti la ñu bëre ñoom ñaar waaye bi nu bëree gis nga moom la yàlla jox victoire bi ndax ñoom ñaar dañoo dem ba ci ba ba temps bi fi muy jeexe ñoom ñaar kenn ku ci nekk rek taxaw kenn xamul lu tax waaye nag mbokk yi mi ngi noonu ba léegi yéen a fii ci Bantamba TV nga xamante ni saa su ne rek noonu la ñuy def di bëgg leen tàgg yéen ci wàllu làmb nga xamante ni bari na ay émission yoo xamante ni nii dinañ leen ko jox ay matinalu Bantamba TV yooyu noonu nga xam ni mësoo leen ko gis ah bari na yoo xamante ni nii dinañ leen ko jox ndeysaan ndeysaan mbokk yi ñaari mbër yaa ngi ci digg géew bi ñu ngi leen di seet di xool di xool ñoom ñaar ndeysaan waaw indi ko mu ñëw ndeysaan mi ngi noonu ñaari mbër ñu ngi ci digg géew bi. ndeysaan waaw ñaari mbër yaa ngi ci biir géew bi. ah arbitre soufflé na combat bi. bi soufflé na combat bi ndeysaan ah. ah. dafa mel ni ki may gis. waaw Petit Niang ñëw na. ñaar. arbitre bi soufflé na combat ñoom ñaar ñu ngi waato këttal ma programme bi foofu gaaw ndeysaan ndeysaan ñoom ñaar laay laa xee daan na ko daan na ko ah daan ko Saalum la ñu jël daan ko Saalum la ñu jël daan ko ndeysaan mi waaye Saalum waay combat bi gaaw ndeysaan huit fait bien fait mooy boobu combat huit fait bien fait mooy combat bi lii la ci def lii la ci def laxasi bi ndeysaan mi ngi noonu mais ñu ngi toog ak Demba Demba si nga xamante ni moom it daanaanu làmb la de way lu neex nga xamante ni moom des fois des fois dañu lay gëj gis ci làmb lu waral loolu ginnaaw bi ma la nuyoo. waaw Bamba maa ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla yàlla defal la jàmm des fois damay gëj ci làmb ji mais damay am ay programme rek damay am ay xew yoo xam ne yii samay xarit ñoo may invité waaye man làmb laa xam et may gërëm nag euh, Assane Ndiaye ci lii mu def. ndax wàcce làmb ji tabaar fa kala macha allah bamba nii mu def nii dafa am solo tëngeej dëkk cosaan la ñoom gàmmu gi ñoo fi nekkoon may gërëm ma lay gërëm di gërëm maam bu baax a baax di nuyu koo xam ne kii nag e bamba nit ku baax la koo xam ne kii macha allah xale bu baax muy pakabooy gis nga làmb gis nga gis nga làmp yi leer ci stade bi nii pakabooy moo ko def muy nit ku yàlla baaxal ma koy ñaanal yàlla sama borom ba ko bëy yàlla na ko yàlla defal jàmm may nuyu sama xarit Aliou Ndiaye may sa xarit Ndiobo muti fa lambaay ma daawru ngéwél yow nag Bamba yow dama lay ñaanal yàlla rek sama xarit yow da ngaa ñëw ci làmb bi nga ñëwee ci làmb da nga ko yokk waaye wàññiwuloo ko yàlla yàlla defal jàmm ñi la soxla dañoo bari ci plateau bi waaye dinañ jàkkaarloo ci bantamba du yaatoo yaatu ñuy waxtaan incha allah yàlla defal la jàmm zaay rek baatin jërëjëf jërëjëf a di ko ñaanal bu baax ndax moom tamit yokkute làmb la yokkute làmb la ñu ngi koy jaajëfal ndeysaan bamba jàmm sa mbokkum géwél mi dinaa ko jàpp saalit waaw daa jaawale biteel yi cumbukaay la jaawale waaw ah, loolu mënta ñàkk jël ndoxum kese baay fi bu bi on est là on t'a battu. voilà. a bëri. waaw ka jëli nag. ak yéen a ko fa nag de ko fa benn de. waaw làmb laa si jëlul kese. kese amuloo si laa xalaat jël la ma ko si lii nga def li simple bi moo la moo ma ko te bii monsieur huitième combat benn defar laa am. arène. di gërëm sama bii lépp lépp moom la. lépp lépp mboom la ak sama gars yi ay dara ak aboy ak simba kon ak perma ngóone contact damaa sonn ñu yëkkati woon ma dama jogal taxawaat mais lan moo tax nga yeb ko ba jàpp ko rek daal kii la la ma sant mënoo mën naa la bëre ko daan mu ah. muy ne xeex yow ngay di bëre kii loolu am wax mënoo wax mën nga bëre dëggal sa bopp jàpp ko daan ka mu ngi ñibbi waaw di gërëm waa waa ñangal gépp waa jalaaw gépp comme combat gaari maare yi day génne ñoo xale sa bëre yi ñii 10 000 la génne ñii 5 000 aso bi na ko fe ba jikko si ku ñëw wax ko bàyyi faal man maa ngi taw ba na ko fe ba jikko siis bu bàyyi faal de am ah, memoura memoura bu jour combat bi dañ di sóob njar bi teel yi da kay bi si bu mu feesa ni lu ko gërëm Ablaye Dieye bu baax Ablaye Dieye moom mee xalis su bëre yi di gërëm sama doom baay bi Modou Diop sama doomu baay yëpp day jàpp si combat bi surtout maa Modou Diop. di gërëm sama yaay bu baax. lépp moom la. sa yaay gërëm sama yaay bu baax. guddi damay ñëw sa njoo ko sa sax mu ne ma jëlee nga bilaay moom moom la saa bi ma génnee dafa gërëm bu jooy. di gërëm waale Ibra Diagne. ak yi muti sama grand bële moo soog ko bële sa combat moom leen di. ndax béyum liggéeyam bépp ñëw si man. ak bilaay ma ma as gërëm sama sobateer bu baax a baax di gërëm samay rakk sama mag yu jigéen yëpp ma ñëwee gërëm di sant waaw sama gars yi tamit ay dara il faut ma waxaat <laughs> <laughs> eh, ma eh, waa baax na ban télé la. ban Tamba ban sama copain bu bëre bàyyiwuma kenn sama booy nag ñu yor nag in Fallou in Papa Ndiaye in a ndeysaan jërëjëf fi na ne nii daal doy na waar xam naa ne mais nag ñu ngi jëm ci grand combat ñuy sant bu baax sponsor yi ndeysaan ca Dakar nee nañu Baba Jaxal moom la ñu daan caatu ngiwal moom moo daan foofu Baba Jaxal eh, lu doy waar ndeysaan lamb la waa lamb la waaye Baba Jaxal lu koy topp ah Samsam 1 Samsam 2 Samsam 3 ah Tali Jaara jàpp pos caaro yi ah ah yow tamit. non doy na waar. waaw ah, doy na waar waay. faaw am ñu sa ngéem nag. ndeysaan caatu moom moo daan bébé jaxal. faaw am ñu sa ngéem. dañoo def lu am solo gis naa nga jëli leen yendu bi. ñu def loo am solo. ñoom ñëpp woote ambiance. mais nag ñaari ndamay dugg mais benn mooy génn. Ah, mais benn mooy génn. lamb loolu mais Baba Jaxal xale bu mën a bëre la. waaw loolu am na ndeysaan. Baba Jaxal bu nu ko jàppalee. mën naa doon champion. san na defaruwaat. waaw gën a xoolaat li ko yàqal. mu concentré wu ci focus ci boppam. mu mel ni beneen ko ngi noonu ci biir géew bi. waaye ñu sant bu baax a baax sponsor yi. ndax lii ñu def am na solo. waaw andil ñu li nga xam ne moom mooy king. ak ndox mu set nit esel king boisson. nga xam ne ndeysaan Catalina ndeysaan Catalina ngi noonu borom king boisson ak ndox mi nga xam ne boo koy naan doo màndi nee naa la mën naa cee naan ñaari litre ndax ndox mi ni mu mel tabaarkalla macha allah lu am solo boo waxee ba mu yàgg nga guux dangay amaat énergie ndeysaan petit ñaa dafa mel ni mooy tuus noonu ndaysaan comme fi mu ne nii ñu ngi ñu ngi ci débat bi waaw seeni i xar fa ñu ngi def seeni i xar fa xuba ndaysaan nga xamante ne ni combat la bu doy waar ndaysaan mais sama xel moo dem ci ñaambay borom tëngéej waa ñaambay moom la ñu ah, tuddee waaw def katu lu baax ndaysaan nit ku baax xam nga ki tuddee drapeau waaw boo la ko ndaysaan loolu leer na moo tax Bawal def na lu rëy. moom la ñuy woowee PDC PDC Soli Edit. maa la mu nekk fii ci Tëngéej di def lu am solo. nee na maanaam li mu bëgg mooy doomu Tëngéej li mu yëngu lu nekk mu gis si boppam. loolu moo ko amal importance. mais nekkul bëgg a siiw wala bëgg a def dara nangam ak nangam. maanaam bëgg na ñi nga xam ne ay doomu Tëngéej lañ te amuñu ku leen jàppale. mu taxaw walanteeru pour jàppale leen ngir ñu am satisfaction ci li ñuy def gis ci seen bopp. am ci lu ñu yóbbul seen i waajur ndax kuy dang-dangi ku nekk waajur a tax ngay dang-dangi ah, te waajur yi dañu sonn damaa bëgg a jàppale sama yaay rek ngay dégg adduna war ngeen këpp sën boo dékk micro danaa la ma bëgg a dimbali sama waay waa ñu waa ñun bàyyi nag non ku dimbale sa yaay dimbale sa baay mais xam nga li tax nga bëgg a dimbale sa yaay mooy dañ ne maanaam jigéen buy sëy ci kër su doom ja màggee atte leen maa la wax loolu sa doom rek moo mën a volontaire pour taxaw wane na yow tey jii maanaam liggéey nga ci kër baayam loo xam ne nii kenn dootu ko fàtte ndeysaan kon yaay yi nañu doole ñaan xale yi itam doole góorgóorlu ba li ñu bëgg ci seeni waajur yi def ko loolu mooy li am solo ndax ñi nga gis ñuy dem si gaal geeg fu ne ñu dugg fa waajur yi nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi bamba mais nag doy na waar trop xam ne dëkk bi doy na waar xam nga li tax gone yi di dem ci gaal gi mooy da ngay yeewoo ci kër ñu lay xool bët boo xam ne nii bët bu doy waar lay doon dégg naa benn waay di ko wax ne nañu waaye xale yi ndax da ngay gis xale bu dugg ci douze nit romb ko foofu ciiputu ko fay lamp ba dem yoonam parce que participer wul àdduna du noonu du participation kër day am kenn koo xam ne moo fay nekk moom la yàlla lay jaarale lépp maa la wax lépp yàlla ci loxoom la koy jaarale nañu xam ne njiit mënta ñàkk àdduna ni mu amee njiit noonu la kër yi di amee njiit ndeysaan dañ ko may mu ñëw ndaysaan mi ngi noonu moo moo tax yariñ solo la ci réew mi yar lu am solo la mais mbër ci ñaa seeram tàng na de jër jër kay mais saa toog na fii de mais lu ne wax na la ko may ñëw muy daaw lu muy daaw na taxaw bëri nu taxaw yow yaa neex yéex a ñëw maa ngi si bunt bi taxaw dañ maa téewoon foofu ah. waaw yow nga war a def def fesu ñu lay téye en tout cas li ma mën a wax mooy. nuyool sénégalais. onze billah bismillah inna wala yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf sëriñ Touba ginnaaw bañ santa yàlla julli seen bi sant suñu ñaari waajur baax a baax di gërëm suñu yaay di gërëm suñu yaay di gërëm suñu papa di gërëmaat suñu papa waaye ñaa ñooñu aw ma seen fay loolu la ñuy daj ci man barke Alxuraanu Karim. kan kan. sama yaay ak sama papa. waay ma leen sant bu baax a baax. amul ak barki arxuraanu kër bu ma leen dimbaloon si àdduna billaahi na ma yàlla jël man soxla ma bànneexu àdduna sama papa ak sama yaay ñooy sama bànneex boo ko defee dégg daal billaahi wallaahi ñooy samay bànneex man ñoom buñu bëggee rek man bëgg naa ma ñu dul ñoom waaw dama leen di ñaanal yàlla bàyyi leen fi may leen gudd fan ak wér gu yaram billaahi sama yaay dama ko bëgg ba teguma ko fenn wallaahi man sama bëggee jot rek sama yaay baa nga jaar sama papa mais ci bis bu rëy nga jëm waaw ci biir bis mais man tàmm naa bis bu rëy waaw yéen ñiy reporté xam ngeen ne man tàmm naa bis bu rëy miin naa ko bis mënu rëy sa mbët xëy na ñoom dina rëy si ñoom mais mënu rëy si man. mais mais loo xëy safara nee na musul arrière. waaw billaahi laa ma ji. musul daanu musul arrière bis baa day daanu te day arrière. Ah. laa la koy day daanu day arrière. mais nee naa ko waa Petit Niang la de mu ne ma lijjantiwuma lool. Assane lu mu def xamu ko sax yàlla xam na ko. da waaw dama bëgg mbër boo xamante ne kii jàmbaar la man jàmbaar laa xam man jàmbaar laa wóor na arxuraan. billaahi man samay bëre may bëree jàmbaar waxuma ay waxu ay ndax naka saxare saay ku la wax amoo làmb mu ngi lay nax billaahi am na làmb bàyyi man xaw barki arxuraan lu ma toog nii aw ma làmb yëpp damay entraîné damay entraîné rek ba ña ba ñii dañuy romb dañuy romb ay ni naan leen kii wax leen ko mu noppalu amul làmb di rey boppam man suñuy di xëy maa ngi xëy di dem entraînement waaw di sant ñu ma àndal ñëpp dama ne ko dama ne ko mën ñaan la mu ne ma man lan laa man man ma sa waaw moo fa man daanaan la mais qualité yi ñoo bokkul nit man ñu ma bëreel moom bëreewul ak ñoom xam nga lamb si am si 9 victoire wala nga am si 10 victoire yomb na ça dépend si ñi ngay bëreel man su ma nee la bëri naa Gackou 2 su ma nee naa Ndongo Lo su ma nee la naa Tonnerre 2 voilà su ma nee la bëri naa Thiély bëri naa Ronaldinho bëri kon xam nga am na yoo xamante ne ay détails la. Thiély jeex na moom benn nit bu bu xam laa xam ne bëri naa moom. bu ko mujjee daan Sall Ngaari Paul bu daaru man kooku laa xam si ñu mu bëreel mais neuf combat bi dama koy dégg nii rek ah. waaw dama koy dégg rek yàlla xam na ko. mais yaa waajal. waaw ñu ngi waajal bu baax a baax. yaa ngi ci ñaata séance. man instant maa ñaar séance lay entraîné. Ah. du ma ko dépassé. mais nee na moom bu sañoon làmb ji. làmb ji nee na Assane da koy xëccaat ba mu gën a jege. waaw loolu si moom lay dépendre nee naa la man ma toogoon aw ma combat aw ma dara di entraîné kon kay bu amee làmb damay lan la. Ah. kon kay bu ma amee làmb damay rey sama bopp du dëgg. waaw noonu la demee maa ngi sant ñu ma àndal ay ay Yaya Diallo Bugari xam nga Ah, Pawaaj Ibrahima sama jarbaat bàyyi dem ma indi Thier xam ma Kirigu ak Bamba aw ma seen fay waaw def nañ bàyyi nañ seen lépp ñëw gunge si bis bi xam nga rek aw ma seen fay maa leen sant bu baax a baax di gërëm tontoo Tafa Touba grand Tafa yow combat bi sa combat lu la war yëpp xam nga ci combat bi am na yoo xam du ma ko wax sax mais lu la war xam nga ko yaa tax ma jël combat bi nuuru fi ba États-Unis maa ngi gërëm baax Issa Kane sama mag tamit maa ngi koy wax sa combat bi di mag ma bokkal ndey baay jàmbaar la maa ngi gërëm Birane Fall maa ngi lay woo si combat bi nga ñëw jàpp si bu baax a baax Pa Moussa sa doom moo am combat jàpp si bu baax a baax di woo waa Buun yëpp waa Espoir xam nga woo ASC yëpp ASC Buun ASC Xayra ASC. tudd nga ko baax Pa Moussa Camara Pa Moussa Camara waaw borom defkat lu baax la maa ngi koy woo ci combat bi mu jàpp si bu baax dental maa leen di woo Joolaay maa leen di woo Daaru Salaam maa leen woo maa ngi woo ñëpp kenn di woo waa Tali Bees di woo waa Mbedd Fass waa Kër Massar képp kuy bëri pétiñaa foo nekk maa lay woo jàpp si bés bi ndax bis bisi bu ma ñor la combat bi daa am lu ma jaral moo tax na ñëpp pare ñu ñëw xam nga gars yi namoon nañ ma trop fu ma romb aw ma jàmm combat combat am nañ bis na gars yëpp ñëw jàpp si waaw laay wax di gërëmaat sama papa ak sama yaay bu baax waaw gërëmaat sama papa ak sama yaay bu baax di gërëm abo sama benn xarit ak prince bu baax a baax maa leen gërëm bàyyiwuma kenn maa ngi gërëm ñëpp kontaan nañ jaajëf jërëjëf ndeysaan kooku mooy Petit Niang xamante ni mi ngi jëm ci bis bu mag ndeysaan ndax loolu dafa am solo ndeysaan mbokk yi ba léegi ñu ngi ñu ngi jëm ci grand combat bi du yàgg dara ñu jox leen grand combat bi nga xamante ni dégg ngeen ko léegi fële ca Dakar ki nga xamante ni moom mooy caatu ngéwël moom moo fa daan ki nga xamante ni nii ah moom mooy wëndëng bi mais nag làmb noonu la tey da ngay daan mais suba ñu daan la làmb noonu la Baba Jaxal si yow champion nga Baba Jaxal ni bi ñu ñëwee ci làmb yàggul mais wane nga say say say empreinte gis nga ni la ni la waa waa waa tali a jaara liñ la sas gis nga ko muy làmb ju neex père maa ngi lay naa la jëwrin ba nga jàmm maa ngi am jàmm baax baax baax. tey lu waral teewaay. teewaay mooy euh, sama sama sama benn mbër moo doom bëre fii euh, Racine Tall. mais dafa am defet. ndeysaan lamb noonu la. nga am defet tey nga am victoire indi ay mbër ñuy daan ñuy daan te di la xamal ne que mbër laa bëgg naa combat nag bark ah. Sini Sallou koo bëgg a bëri ma jox rek yaa sama promoteur ma jox la Modou Mbaye jox ma Modou Mbaye ah, bëgg naa ko pour euh, lu ñu am rek ca Pikine lay dem ca école ba ah. ca école ba la waaw Pikine la nekk jox ma Modou Mbaye <laughs> mais yaa ngi ci jàmm maa ngi si jàmm baax di sant lamb baa ngi baax juddu euh, naa gis naa tuuti violence mais quand loolu du si du si ñàkk di sant homme de tenue yi coow ñooy ànd mais toujours dans le fair play li di sant waa ginnaaw bu baax baax baax ñun ginnaaw raay am Pikine lañ am donc euh, dëkk nañu Tëngéej mais suñu xol baa nga fale xol baa nga fii. la nga fay ne moom la ngay nekk. waaw waaw foofu la mbuur bi xoyom xoyomee jërëjëf waay. mais xale yu bëri yaa la jàngal. waaw ba xale yu bëri gis nga suñu résultat BFM ba euh, ñoo raw ñëpp. ñoo raw ñëpp ñëpp ba ci nga bokk. ci nga bokk macha allah di sant ñëpp di sant parents d'élèves yëpp di sant communauté éducative yëpp nga xam ne ginnaaw raay Pikine Sénégal Tingéej moo ñu ñor. yëpp benn benn la. kontaan ci yow ci yow rek jërëjëf gaay jërëjëf maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax. di waaw ñëwal ñëwal ñëwal rapidement yow toog yow maa ngi naa la lépp daama maa lay ziar bu baax a baax. ah di rafetlu li nga xamante ne mooy seen liggéey fii yéen yi nga xamante ne ñooy wane waa Mbatamba TV yaakaar naa ne làmb bu tolloo fi da ngeen ci am li nga xamante ne mooy par de responsabilité yéen a waa kër El Hadj Bakaye Mbaye ñu koy nuyu di ko ñaanal gudd fan képp ku bëgg làmb da war a ñaanal El Hadj Bakaye Mbaye yàlla may gudd fan parce que gudd fanam njariñ la si làmb euh, léegi nag jow ngeen ci dëkk boo xamante ne dëkku làmb la yàlla ñu nattoo ñu si làmb koro waxoon naa la ko mais tamit nag tey jii nii ki ñu tuddee làmb ji muy ñaambay euh, euh, borom solo itti dafa def rafet boo gisee ñëwul sax waaye jàppale na li nga xamante ne mooy mbëru tëngëj ndaxte mbër bu si nekk toog nga mu yónnee la cent mille franc te ba pare ne nangu jël drapeau bi lii la ñu bëgg ndax lambi tëngëj su xalaku parce que na bëgg nañ bu ëllëgee doomi tëngëj ji loolu moo dañuy sonn si lamb dañu bëgg roi des arènes dugg tëngëj lamba toxu sa biir tëngëj parce que bu njëkk boo xoolee sunu maam yi ñu si mel maam songaan gay ñu si ni gàmmu gay ñooñu noonu ay champion la ñu dañu bëggaat tëngëj amat ay champion jërëjëf ñuy jàppale làmb te loolu dafa am solo tey nee naa la ñu ngi fii ci Tëngéej nga xamante ni Tëngéej yàgg naa dalal ay ndaanaan Tëngéej yàgg ak xar baax te loolu dafa am solo ndeysaan waaw loolu mënta ñàkk loolu am na solo Assane kaay nii yow nga xamante ne nii ah, tey. tey làmb ji tëngeet gépp dañoo génn tey làmb ji ñu tuddee ko koo xamante ne ni moom it ndaanaan la jàmbaar la ndax defe naa ni jàmbaar moom moo tax ñu tuddee ko bis tey gis naa mbër yeeg ñëpp tey nekk ci ginnaawam te loolu dafa am solo ma bàyyi la nga nuyoog ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo lay seetaan yaa ngi en direct Bantamba TV àddina a ngi lay seetaan ñëpp a ngi lay seetaan maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax. ma bàyyi la nga nuyoog sénégalais. asalaamaaleykum téléspectateurs yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di rafet lu bés bi di leen ci remercier bu baax a baax a baax sama boroom kër mii di ñaambay du ñaambay mi ma yebal fii pour ma di ko représenté tey bu sañoon moom mooy nekk fii ak yéen ci bis bu rafet bi nga xam ne moom lañ ko tuddee waaye yàlla dafa def ne dafa am benn urgence ci wàllum liggéeyam. moo tax teeweewul bis bi ak yéen mais mi ngi koy rafet rafetlu bu baax a baax di leen si remercier di euh, aussi euh, féliciter le futur vainqueur ci ñaari làmb yi donc ñu ngi leen di gërëm bu baax. mais da ngeen a jug ñëpp jug tëngeej gi jug tëngeej jug ñëpp jug lan mooy bon secret bi amul amul secret bu bu bare lu dul tëngeej moo ñu ñor. tëngeej tëngeej rek ka ñu ñor. léegi dangay ngay toog nii ma reporté ma reporté làmb ji ñu doog a eggali ndeysaan mbokk yi arbitre bi sifflé na combat bi nga xamante ni nii ndeysaan mbokk yi tey ñëpp ngi doon xaar làmb ji ci diggante ki nga xamante ni nii mooy Petit bay fal ah combat bu neex saay may ñu tuuti may ñu tuuti nga xamante ni làmb ju am solo la tey. te Assane moom moo nu moom moo nu woo fii ndeysaan ci stade Ngalandou Diouf fii ci Tëngéej nga xamante ni Scorpion moom mooy daje ki nga xamante ni mooy Petit Baye Fall Scorpion moom moo nekkee à droite waaye ki nga xamante ni mooy Petit Baye Fall moom moo nekke à gauche at bi bi sifflé na combat bi ñoom ñaar ñu ngi leewaatoo. mu mel ni ñoom ñaar dañoo namante dañoo bëggante ñoom ñaar ndax bi ñu taxawee di présenté drapeau bi ku nekk nga wax sa morom lii la ñu yàkkamti woon arbitre soufflé mais li ñu xaar ci mooy. ñu wane seen bopp ñoom ñaar ku ci nekk li nga doon wax ci signature yi ak li nga doon wax sa morom nga wane ko fii. ndeysaan fii lañ war a ñoom ñaar. Petit Baye Fall ak ki nga xam ne nii moom mooy Scorpion. laa ilaaha illallaah lan moo nar a xew. ñoom ñaar waaw ba pare te ñoom ñaar sànq ñoom ñaar lu ne waxante nañu ko fii ci biir géew bi moo tax ñoom ñaar ah. nga ne ma leer ñoom ñaar dañoo war leeral. dafa war leer ndeysaan. Scorpion ak ki nga xamante ni mooy Petit Baye Fall ñoom ñaar Scorpion moom la ñu jàkkaar lool waaye Petit Baye Fall moom moo ne woon ginnaaw Petit Baye Fall moom moo njëkk a tooñ cokkaas na ñoom ñaar jàppante nañu jël na tànk ba dëj na ko mu daanu laay laa xëy la laa Petit Baye Fall daan na ko Petit Baye daan na Scorpion eh eh eh eh jeex na waaye li lan la teg fee ba ñuy ni problème ah teg fee ba ñuy ni problème laay laa xëy la laa Petit daan na ah? sànq maa la koy wax nee la da ngeen a jug nee naa la da ngeen a jug mbër ñëw ñëpp ñëw ak Assane mi nga xamante ni moom moo leen tuddee tey drapeau bi. waaw euh, déjà dañuy remercier ñëpp ñi ñëw ñi ñëw ñi fi teewee yëpp tey di féliciter Petit Baye Fall ci victoire am bi di ko féliciter bu baax a baax a baax macha allah mérité na ko ndax euh, préparé na combat bi. Euh, li ci waroon yëpp def na ko ñu ngi koy félicité bu baax. si nga ñëwee noo gisee làmb. macha allah daal laa neex na trop. maa ngi lay fay sëñ bi maa ngi lay ziar maa ngi am mbégte vraiment ñëw tey fii ci stade Ngalam Diouf fekkee lii na xam ne tey mooy bés bu am solo yaakaar naa làmb buñ ko defee tey ci stade bi Assane Ndiaye def ko nekk promoteur. seen diggante ak Assane lan nekk nit ku baax nekk nit koo xam ne vraiment ku fonk du mbay nekk nit koo xam ne tey mën naa ne ci làmbu Sénégal mënu wax te dugg ci génn. kon donc bu jëlee lii tuddee ko suñu rakk tuddee ko koo xam ne doomu dëkk bi la yoon la nit ñi ñëw teewal ko remercier ko sant ko yàlla def tey ñu ànd délégation boo xam ne mooy délégation ñambay sorom si di asu madame Mbaye doon nit ku baax doon nit ku taxaw jëkkëram jëkkëram nag yaakaar naa ne duñ ko wax waat njëkk tey Assane dafa ñëw tey honoré ko tuddee ko làmb mooy tey def na wareefam dab naa ne ndaw bu nekk ci ab dëkk day am njëriñuy dëkk bi te vraiment ñaa yaakaar naa ne nit ñi gis nañ taxawaayam ci biir Tëngéej sociale bi muy def jëmee ko ci ay nawetaan yi jëmee ko tey ci ñi nga xam ne tey ñooy population bi yombul tey nit yore structure bu mel ni Solitude jël tey Solitude di financer di di di sponsoriser équipe nawetaan yi quartier bu ne ñu tànn ci tey ñaari nit yoo xam ne dinañu mën a yóbbu ñu jàngi Europe kon donc loolu bu ko def ree waa Tëngéej la ko defal te ñuy sant te ni di remercier waa Tëngéej ci taxawaay bi nga xam ne taxaw nañ ko ci ginnaawam ci match AJEL bi ci digganteem frère am Paco Boy yàlla def ñu nekk ay ndaw nekk Tëngéej def lu liggéey ji am solo ñaanat dañ koy ñaanal yàlla lépp lu mu teg yàlla jàppale ko te yaakaar naa ne ñun waa Tëngéej dañu am benn slogan boo xam ne moom la ñu am mooy ñun ku ñu yëg ku ñu faale moom la ñu faale te moom dab naa ne faale na waa Tëngéej fonk ne leen kon bu ko Assane deferee ñoom na tey ñëw toog fii gërëm ko sant ko di ko nen ko defal na ko comme ko war a defal di xamal ne ñambay mooy ñambay tënjët waaye ñambay mooy ñambay Sénégal ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. jërëjëf mi ngi noonu kontaan nañ ci yéen. maa leen waaw. rapidement rek. rapidement rek waaw. maa ngi lay ziar bu baax. alhamdulilah. tey tey da ngeen ko tuddee drapeau bi. ñu ngeen tuddee ko borom këram nga xamante ne tey tëngéej ñëpp ñëw nañ teew ci li nga xamante ni moom mooy dara. waaw euh, maa ngi gërëm bu baax waa tëngéej yëpp rawatina sama xarit sama doomu nday ñaambay si suba ba léegi ñu ngi jokkoo envoyé naa ko lien bi sax mi ngi seetaan direct ma koy nuyu di ko ziar di ko bége bu baax ndax lu mel ni su amee si dëkk bi moom moo tax moom moo jàppale fukki xale ak yoo fukki xale yoo xam ne tëngéej lañ dëkk jàpp si événement bi à 100 pour cent mais événement bi yëpp nag dañ koy mayaat astu ndax kii bi ñu demee këram non dama gis loo xam ne dafa yéeme yaatu na am na jàmm mën na joxe ñam nit ku baaxal ngi moo tax nit bu avancé rek ñu xool kan moo ne si ginnaawam mais kii moo ne si ginnaawam nit ku baax a ngi nii barke Serigne Saliou xool ku nekk maa ngi tooñ sama soxna sax ma ne ko li ngay mën a mën a joxe ñam noo astu la man mu naa ah, ma non nu ma astu ma ne ma ne ko non yëf yi daa tegaloo te gaaw macha allah. asu billaahi dama bëgg si yow yàlla na la yàlla defal jàmm gën la jubal ak ñaambay